مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا الحمد لله رب العالمين اللهم إني نعوذ بك من سرة اللسن وفضوء العذر كما نعوذ بك من مأرة اللكن وفضوء الحسر والصلاة والسلام على من قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وعد الأمانة ونسخ الأمة وكشف به سبحانه وتعالى العمة لم يترك شيئا ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم وبرزقهم mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi الله wa barakaatuhu mbokk yi téléspectateur yu يب TV yëpp ñu mo xam ci biir rew mi ngeen nekk wala ci bitim rew di len ziyara waye di len ndokel ci weer wi nga xamne ne mooy wu tedd wi ñu jige ci bis bu tedd te moy bisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne ñi ngi doon màggal bisu juddoom te moy bisu altine la juddu ren gam gi ak bisu altine fa tabarakallah ni ko bi daan waxe rek serigne Mansour ne dafa ala dawme ñu ndokkeel ci xalifu généraux yëpp tabaarakallaahu nuyu boroom xam-xam yëpp nuyu association yëpp nuyu dawaayira yëpp ziyaar leen ñaan yàlla ña koy fekkee déwén yàllañ ci yàlla boole mu ànd wér ak sutura ak jàmm yàlla gu yàlla nangu ginnaaw bi ñu nuyoo waa télé bi yëpp nuyu directrice yeeg directeur yeeg tabaarakallaahu monteur yeeg techniciens yi ñëpp ñu ngi leen nuyu baax di leen ziyaara di nuyu sunu jigéenu bopp soxna Awa Babacar ziar ko bax tafsir hamidu Wele fele marok Maroc ziar ko di nuyu sunu mak serigne Mamadou sambu Ñang fas diko ko bax ak serigne Yaya Ba Mawlaay abdul Aziz Ndiaye at Tijaani mbokk yi suko defé mi ngi nonu sen émission ëttu l'islam ngeen xam mom ngeen am ci semaine bu jot ngeen ci andak sen mbokk al oustaz gore ñang ñu dellu si waat tabaarakallaahu ñëwaat nak ci thème sujet d'actualité ni ngeen ko xamé rek l'islam buñu waxé waxee Islam rek manam l'islam dafa ëmb lepp tay nak ñu bëgg jël ben point waxtané ko nga da fay jajji waat nit ñi su ko defee ñu bayyi ci seen xel lu bari bari te moy wattaqu yawman turjauna fihi ila allah moy ñun ñëpp war nañoo dellu waat ci ay bi nga xamné mom la alquran wax te bis bi nga xam ne ñun ñëpp danañu teewaat wala ñu teew ci kanamu sunu boroom nga xam ne ca lay régler léppam tabaarakallaahu mbokk yi boo xoolee fi jamono toll fi réseaux sociaux yi toll fi ñaawteef yi toll dafa mel ni nit ñi xalaatuñu bis bi nga xam ne yàlla wax na ne ñëpp danañ ñu daje ci sama kanam ma réglé leen waaw xam nga nit ki su juddoo dafa commencé lu ñuy wax voyage voyage bi nag yaa ngi déparé fii ci àdduna waaye dafay am escale escale bi fan la fu ñuy wax barzak foofu lañuy ñuy laata ñuy àgg fa nga xam ne moom la ñu jëm te moo waral voyage bi te mooy yowmal qiyaam su ko defee nag ci la yàlla di àttee wax ñi war a jëm àjjana ak wax ñi war a jëm safara moo tax boo nekkee ci àdduna war dem ci voyage boobu am na loo xam ne moom nga war a jiital ndax booy tukki danga nga war a yóbbaale sëricë te nag sëricë bi nga xam ne moom dong moo la mën a aar ci lépp mooy li ñuy wax at taqwa mooy ragal yàlla alquran wax na la ko wa tazawadu fa inna xayra daadi at taqwa leneen loo fa yóbbu lu ñu ragal yàlla soo agsee ci diwaan yi ñuy wax malaayika suñ ko tekkee gisuñu ko dañ lay refule waaw mënoo ci dara xaaji muhammad <laughs> dégg nga moo tax ndeysaan nga gis nit ñi di ut sëriñ ngir rek Sering bu sering sëriñ nak motax ñuy wax ko xamne ne daf lay tek ci yoonu yalla ba soko sax do am problème mo wax la ko tay nak bepp sëriñ bo xamne ne la tere li sa bakkan bëgg koku matula sëriñ moo tax benn goor gu ñuy wax maam gi qadi ma jaxate kala xam ngeen ko daf doon wax naan waman li bi shayqin la yudamu muriduhu ndax yu farriju amal yawmi aw fasari ghadi xadi dafa xëy di laaj nan fan lay jëleetee sëriñ boo xam ne laa yu daama muridahu du teg taalibeem gàcce yowmal qiyam allahu akbar du teg taalibeem gàcce yowmal qiyam ndax lan yu farriju amal yawmi moy da fay sede fi ci aduna tek la ci yoon bax aw aw ghadi so ñewé allah àllaaxira do am problème ndax lan fekk na mu teg la ci yoonu siratal mustaqim ndax dafa am lu ñuy wax al maqsad wala objectif gis nga jullit bi gaay ndax yéen julli yi ngeen di julli wala woor wala yeneen xeetu jàmm yàlla yi ngeen di def jokk mbokk def lu baax saraxe jàng alquran da ngeen ci jublu leneen lu dem aljanna wax leen ko kon nag dafa am lu ñuy wax finalité ak moyen nit ki soo amee lii man yoon bii laa jëm boo ko xamee ba pare nan nga ciy jaar bi mu waxee loolu moo tax nga gis mag ñi ndeysaan ku mel ni Seydina Cheikh nga xam ni ni mu yaree woon njabootam rabbaa bilaa xalwatin li ko moom xalifa waxee woon asxaaboo alanan xatta staqaamu fayaalallaahi manxa maanaam yar leen teg leen ci yoonu siraatal mustaqim ku mel ni maam Cheikh Al Hadj Malick tey boo ko jëloon nga xam ne exemple la boo ñëwee ci moom ñaar mooy bi himmatin aw bi haalin maanaam himma mooy lan soo ñëwee ci moom mu xam ne yow mën na laa jàngal day daleeg yow laxdari yu continuer yow asmaawi yu ibnu asir muqaddim ba ngeen egg risaala ba seex xalil ak yeneeni téere waaye am na ñoo mag ñoo xam ne bi ñuy ñëw ci góor gi fekk nañu mage jàng ci téere wees na ci ñoom lan lañ def ba baax moo aw bi xaalin mooy di toppandoo ku baax bu góor gi demee ci jàkka ja ñu dem ci jàkka ja su nafila ñu nafila nonu lañu def ba baax waaw te nak képp ko xam ne Cheikh Al Hadj Malick wax na ci qasidam bu siw bobu ñi wax Hamziya mu ne képp koo xam dañu la top mo xam sëriñ nga wala shaykhu tarqiya wala murabbi yarkat nga lo ci doon ay nit ñoo top sa ginnaw boot sa ginnaw ta dang leena wara wan yalla wanoo leen ko maam Cheikh Al Hadji malik neena farata la ci yow nga jangal len ñu xam seen diine wa ta'limuhum fardun walaw bi ijaratin wa illa alayka al ismu yawm al liqa neena kon farata la devoir la ci yow sëriñ bi nga jàngal ñooñu top sa ginnaw seen diine su fekke ni amuloo jottu jangale nga out professeur ko xamne day jangale yow serigne bi nga koy fay pour mu jangalal ñi top sa ginnaw ñu tuddee ay talibé wa gi so deful loolu lan mo ci war ëllëg mu ne la wa illa gis nga su amul alaykal ismu yau so dajje ak ëllëg suñu borom bu la yërëmul duma la kon nga japp ni tay bo xoolee ci senegal xolal gis nga damay wax ni sunu gamu yi ak suñu conférence yi dañ ko wara soppi mu nekk ay daara aw gàmm yi ñi def legi ak takusani programme sur programme dañ ko wara walbati mu nekk daara waaw léegi nag xam nga problème bi lan la mooy gars yi léegi sëb yi la ñuy wane waneetuñ daay gi te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit day ñëw yoru micro au mu wax nit ñi lu leen jariñ mais déedéet da leen di wax boppam wala mu nekk ci baayam wala ci maamam mënoon a wax nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jikkoom ñu dund ko dem jëfe ko waaye déedéet danga nga fay nekk di leen léebal di leen reetaan la ñu naan diw mii moo saf xorom diw mii moo saf xorom wala diw mi toj na gàmm gi <laughs> xanaa boo doon tabax sax mu baax waaw kon yooyu yëpp nit ki dañ ko war a xam yow da nga war a am loo xam ne nit nit dafa war a yeewu parce que tey bu ñu ñëwee tey ba 2018 ñu lay wax la mondialisation ala ma nga xam ne léegi àdduna nga yor ci sa poos te mooy lan téléphone bi nga yor nga xam yow li xew États-Unis bala am 2 minutes nga kufinga fi nga tok ci sa sal bu xeyé dal yow amo lenn lo def bu xeyé seug ci ordinateur bi dugg ci YouTube bi wax ju bon du ñu sanni nga capté ko di jeex bu ko defé yow bu xeyé suma ba ngoon ci WhatsApp bi nga yendu ta WhatsApp mo wax lako wattul sa bop la tud wattul sa bop alquran mo ne wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqaahu mansuura yàlla nee na képp ku ñew yawmal qiyamah génne la sa chatatatat loolu lu neex expliquer la ci jamono ji fimne ni bu nit defoon njombe gendarmerie diko wër ci téléphone ni def dañuy jël numéro bi rek yóbbu Sonatel su ko defee gars yi ne traite répertoire bi diwa ngi nii nii la tudd kii la mujjee waxal lii la mujjee wax ak moom sagam ay nit ñoo mën loolu nag fii ci Sénégal yàlla bu la waxee ni boo ñëwee yowmal qiyam ma génne la sa répertoire nga war koo mën a gëm su ko defee nag répertoire bi lu ca nekk waaw man maa doon transfert audio yi am na ñoo xam ne audio bu bon rek la ñuy wër fi mu ne nii audio 27 minutes bi mooy mooy lëmb àdduna bi boo ci paree ñu naan la audio 12 minutes bi yow. au lieu nga dugg ci internet bi li ci nekk ci ay xeetu xam-xam lu nit mën a jariñoo mais déedéet doo ko def perte sa temps yàq sa xaalis ëllëg ñu dumale ci amul njariñ gis nga ñeent yi képp ku ko boole te mënoo caa jariñu buñ la yenniwul yóbbu faanit ba boo xam ne doo nit ñeent jàpp ko képp koo xam ne ci jamono ji may waxee yow dajale nga ñeent yi moo xam ci programme la wala lu mën a doon te mënoo caa jariñu soo yenuwut say dàll dem ca sëni it booy boo xam ne doo nit bi njëkk mooy xel gars yi dañuy dajale seen xel moo xam programme la ñuy def wala luñ mën a def dajale ay xel ñu dajale suñuy xel ku ne xel li nga xam ne teraanga bi yàlla jox nit bi ci gën a rey bi ci gën a rëy mooy xel nga dajale sam xel ba pare te mënoo caa jariñu am Cheikh Alxaaji Malik nee na soo yenuwul say daal dem faa nit booy boo xam ne doo nit benn ngi noonu ñaareel bi mooy alal nga xam ne alal dafa sax ci xol moo tax yàlla nee na bi may jaay aljana daf ne ñaar laa koy jaal ngëm yàlla gu mat ak alal inna laa ishtara min al muminina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna te wama sumiyal maalu maalan illaa li anal quluba tamiru ilayhi nga xam ne alal dafa sax ci xol xoolal nga dajale sa xel muy xel li ba nga boole ci sa alal def ko ci dara ba pare mënoo caa jariñu soo yenewul say dàll dem faanit booy boo xam ne wéroo ñaar ñetteel bi mooy lan mooy kàttan dangay gis koo xam ne day dajale xelam boole ko ak alalam boole ko kàttanam ci benn mbir di ca yëngu te mënul jariñu ci mbir moom ñeenteel bi nag xam nga mooy lan mooy temps mais xoolal sëriñ bi nga dajale sam xel dajale sa alal boole kook sa kàttan coono goo xam ne yaa ngi dégg boole kook sa temps dagg sa temps ndax heure boo demee moo xam programme wala feneen am na leneen loo waroon a def da nga koo bàyyi ñëw toog te mënoo caa jariñu te ci li ñuy wax gars yi war nañu xoolaat suñu bopp ñu moytu réseaux sociaux yi ay waaye niñ ko moytu dangay gis ñu def dara ñu ne nañ ko suturaal d'accord sutura baax na waaw sutura baax na waaye ana jub am na loo xam ne soo ko waxul wala soo ko deful kenn du la ci tudd jël sa téléphone bi def ci ay loo xam ne ay film yu bon la wala ay audio yoo xam ne baaxul nga jékki-jékki rek sa loxo laal ko mu dugg ci benn groupe ñëpp mbamb la yow grade bi nga amoon ca groupe bi yëpp grade ba yàqu na loo amoon ci personnalité dañ na lan moo la ko yóbbee ana jub bu ko defee ñu naan nañ ko suturaal nañ ko jël PV yooyu yëpp li koy waral mooy ñàkk dignité nit ki daa war a xam li mu am lan la waaw kon nag wa du fa inna xayra zaadi at taqwa wa sabaada léegi fi réew mi toll yow da ngay yaakaar ni éducation de base moom dafa jeex moo tax tànk tànk ñëwuñu wala ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam booy boo xam ne réew mi du jag bu doon ku rey ñu rey la léegi reyaate jeex bu doon ku taal ñu taal la léegi taal jeex mais xoolal nit nooy tiimee nit di ko sotti essence di ko taal mu ba jeex yow dangay dem ba yàgg danga naan ñun ban ban réew lañ nekk ban monde lañ nekk waaw jikko yi yàqu na lépp te buñ ne da ngaa sopp yonent bi nga fottasu joxe sa xaalis te yow tollu la fii li yonent bi jàngale woon boo ca paree leneen ngay def jar na xoolaat te yow bu ñuy lim ñi bëgg a dugg aljana kenn du lay njëkk a yëngati sa loxo fi mu ne nii boo doon def micro laaj ñen ñoo bëgg a dugg àjjana yaakaar naa safara moom doo gis te yàlla ni mu bindee àjjana noonu la bindee safara fu ne am na ñu fa war a dem waaw kon nag mbokk yi nañu góorlu ñaaxaat suñu bopp góor góorgóorlu ci diine waaw ndeysaan ma nettali benn histoire waa ji dafa am pour wax la ni rek ne ne maanaam ci àdduna ngay nekk lu ne nga dab ko doo ko jot ba pare sa diina fe nga ñàkk ko waa ji dafa yor kaat bu rafet di dem ba yàgg am ku ko arrêté benn jigéen bu rafet mu xool kookan la mënu ko dooma yóbbaale mënu ko yéegal ci kanam ndeysaan mu ànd ak ku jigéen ki di dem ba léegi maa ngi ci àdduna di la misaal rek ni mu demee bi mu demee ba yàgg am ku ko arrêté waa ji ne kookan la mu ne ko man la CFA mu ne ko CFA mu ne acca ku jigéen ki demal ci ginnaaw CFA yéeg ci kanam <laughs> ndeysaan muy dem ba yàgg am keneen ku arrêté kookan la mu ne ko man la euro mu ne ko acca yow demal ci ginnaaw euro yéegal xolal mu dem ba yàgg am keneen ku ko arrêté kookan la mu ne ko man la dollar mu ne ko eh euro kon <laughs> da ngay dem ci ginnaaw acca dollar ñëwal non lu continuer di dem ba yag nak am keneen kuko arrêté kan la mu ko man la diiné waa ngi ni ko diine ah, bi fess na de <laughs> xajo ci dé diiné mëno ci dugg ndaysan ah waa ji daal di continuer dem bimu démé ba yag am keneen arrêté ko kan la mu ko man la malakal mawti mu ne ko ah auto bi fess na dé malaaka ne ko dugg force da nga yobale par la force waaw wala lenn su fekkee ni am nga diine daal ma bàyyi la nga continuer <laughs> te fekk diine mu ngi ko bàyyi ca gannaaw dam ne ko woon oto bi fees na allahu akbar mu ne ko ah, boo amee diine daal ma bàyyi la nga dem mu xool xool ne ko ah diine dem maa ngi ko fële ca ginnaaw léegi malaaka bi ne ko léegi kon dangay dem wala mu ne ko xanaa lenn nga may ma ma dem jëli ko waaw bi mu ñëwee fa ma bàyyi woon diine fekk ko fa diine moo lay xaar du la xaar waaw maanaam kon mi ngi noonu après li ma bëgg a wax rek malaaka bi moom du la xaar da lay daal di jël léegi léegi sa yóbbu la li ma bëggoon a wax rek mooy boo nekkee ci àdduna di dabu ci ginnaaw jigéen ñi doo leen mënoo leen a jeexal bu dee CFA mënoo koo jeexal bu dee euro mënoo koo jeexal bu dee dollar mënoo koo jeexal kon nag diine rek nga mën a am yaa ngi dégg mu ëmbal la lépp lépp soo amee diine am ngor am nga lépp soo ñàkkee diine ñàkk ngor ñàkk nga lépp kon nag yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp nga xam ne tabaarakallaahu ñëpp aljana lañ bëgg a dugg nga xam ne dañ naan la ridwaanu xaadinuhaa dara neexul nga ñëw ba yowmal qiyaam ñu ne la aljanaa ngi kër gi koy kër gi ki koy gàdde malaayika la gars yi loolu ñëpp ñëpp ko bëgg a am waaw te bi ci dàq mooy wal jaaru ahmadu foo dëkk nga ni maa ngi dëkk ci villa boo xam ne sayyiduna muhammad laa dëkkal sallallahu alayhi wa sallam war rahmaanu naasiyaa nga xam ne kër gi designer bi plan bi ki ko tabax wala ki ko dessiné nekkul Pierre Goudiaby Atepa mais yàlla moo ko dessiné nga xam ne xusuuruha zahabun ay plein la birig yoo xam ne ay or la wal misku tiinatuha karaw yi nag parfum bi dàq ci parfum yi moo cay gindi nga xam ne dangay am ay dexu soow ay dexu meew ay dexu lem yooyu yëpp am am fa gars yi góor góorgóorlu jaamu yàlla yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp kon nag fa tabaarakallaahu mi ngi noonu ñu jaajëfal suñu technicien yi ñoom xaaj Mouhamed ñoom xaaj Daouda ci liggéey bi am na solo yàlla yàlla barkeel yàlla yàlla xiir ñu ci def lu baax ay waay nu ñuy góor góorlu di jéggalee di jéllale walay sa xayrul waraa yegg zi sa yi atin yonent bi loo ko musaane def ci lu ñaaw ci lu bon mu ne la jéggal naa la te yàlla tax moo tax bi ko yàllay tagg lépp lu musoon a def yàlla def ko fa bàyyi daal ne ko wa innaka la ala xuluqin azimi dëgg dëgg daal yow yaa rafet jikko in uridu illa al islaam mastataatum wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu مرحبا يا خير دار